Le président Ousmane Sonko aux Parcelles euh, Assainies président ñëwoon fii tey pour euh, s'affronter ak ay nitam waaye surtout dans le cadre professionnel établir une collaboration entre ñi nga xamante ni moo di la mairie de Ziguinchor et celle des Parcelles Assainies à sa tête euh, le maire Djamil Sané jamono yi nii ñuy wax nag euh, rencontre boobu jeex na sànq ca mairie ba waaye président dafa bëggoon euh, jaar fi nga xamante ne comme de manière spontanée les gens sont sortis euh, Moussa Fonte ak ñoom fii nii nga xamante ne ça fait office de de pratiquement de permanence parce que parti bi ñëpp xam nañ ko ñëpp dañ fiy ñëw président waroon ñëw fii nii rapidement saafonte ak nit ñi balaa muy jëlaat yoonam Parcelles Assainies mi ngi nii président Ousmane Sonko mi ngi noonu euh, génn na oto baa ngi noonu di dem euh, mu fees dell ak nit nit ñi génn de manière spontanée waaw nit ñi génn de manière spontanée euh, pour daanaka gunge ko on va essayer d'aller ci kanam waaw on va essayer on ci kanam président Ousmane Sonko fii nii ci parcelle ça me rappelle ndeysaan campagne mi ngi réveiller ay souvenirs yu am solo yàlla xam na ne lii mësta am lii mësta am le président Ousmane Sonko ici aux Parcelles Assainies une visite inopinée adiya yi nit ñaa ngi joxe adiya yi nit ñaa ngi joxe c'est extraordinaire une visite boo xamante ne kenn waaju ko ñëwoon en tant que maire de Ziguinchor pour jeter les bases d'une collaboration entre la mairie de Ziguinchor et celle des Parcelles Assainies dirigée par Jamil Sané le président Ousmane Sonko bi mu paree ci saafonte boobu ci séance de travail boobu ak les conseillers municipaux gis ngeen ci nit ñi la sécurité est obligée d'accélérer la cadence pour génn fii parce que nit ñaa ngi génn nit ñaa ngi génn président Ousmane Sonko et véritablement on veut vraiment pa créer loo xamante ne fii ci embouteillage waaye lii la yàlla def président Ousmane Sonko moo ñëwoon Parcelles Assainies on va augmenter la cadence un peu la sécurité ñu koy demander ñu accélérer tuuti parce que itam visite la boo xamante ne c'était pa prévu cadre professionnel moo ko fi indi woon waaye président Ousmane Sonko fu mu génn mu nekk événement c'est le peuple qui le demande déglu leen li kenn du ko président Ousmane Sonko. président Ousmane Sonko, ce sourire légendaire, le leader des patriotes du Sénégal et de l'Afrique. L'homme est là, le maire de Ziguinchor, l'espoir de tout un continent. Borom Gatsa Gatsa, président Ousmane Sonko, ici aux parcelles Assainies. ku mer na nga dugg sa biir kër nga toog noppalu président Ousmane Sonko mi mi ngi noonu nit ñaa ngi ci seen terrasse nit ñaa ngi ci kaw étage yi les gens sont en train de le suivre ils entonnent boo ko laalee boo ko laalee président Ousmane Sonko ngi noonu il demande à la sécurité d'accélérer la cadence nañu accélérer parce que lii c'était pas prévu waaye mbiru yàlla la mbiru yàlla la c'était pas prévu du tout mais président comme ni mu ko waxee woon à Joal ku mu seeti sa kër mbokk génn askan bi génn ndax moo fi nekkal askan wi le président Ousmane Sonko casserole yaa ngi noonu le président Ousmane Sonko nous sommes aux Parcelles Assainies di fàttali rek li ko fi taxoon a ñëw séance de travail la adiya yaa ngi noonu gaa ngi joxe adiya yi ba léegi <laughs> Mbacké Mbacké Mbacké on arrive di fàttali ñi ñuy suivre c'était une visite professionnelle le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko était venu à la rencontre du conseil municipal des Parcelles Assainies bi nga xamante ne ils veulent jeter les bases d'une collaboration d'un jumelage d'une coopération entre la mairie des Parcelles Assainies ak bi nga xamante ni moo di bu bi mu pare séance de travail boobu comme moom fu mu dem événement la ah information bi daw président Ousmane Sonko mi ngi fi nga xamante ne moom moo di Parcelles Assainies nit ñi génn de manière spontanée ñii ci seen kaw terrasse yi ñii ci suuf di woy di ànd ak moom président Ousmane Sonko ici aux Parcelles Assainies di fàttali c'est une visite professionnelle absolument professionnelle qui n'a rien à voir avec la politique loolu moo ko taxoon a jóg nit ñi génn nit ñi génn askan bi génn topp ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko la sécurité essaye ñu di dégager un pour ñu mën a dem ah rapidement je vais essayer de trouver waaw ci Samb Samb laay xaar Samb Samb. Samb lañu gëm. day ñibbi mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu devant président Ousmane Sonko mi ngi noonu président Ousmane Sonko mi ngi noonu ñoo ngi Parcelles Assainies ñoo ngi Parcelles Assainies mi ngi noonu le président Ousmane Sonko Je rappelle que visite le boo xamante ni c'était dans le cadre professionnel ici au Parcelles Assainies le maire de la commune de Ziguinchor en l'occurrence Ousmane Sonko ñëwoon fi nga xamante ne moo di Parcelles Assainies gisee conseillers municipaux yi gisee ak maire bi Jamil Sané pour que ensemble ñu jeter les bases d'une coopération d'une collaboration entre ki nga xamante ne président mi ngi noonu nit ñi nañ ko may mu dem mi ngi leen di gërëm mi di ñaan nañ ko may na nit ñi yem foofu na gunge bi yem foofu parce que dañoo war a jël VDN bi donc c'est un peu mi ngi noonu mi ngi noonu gunge bi jërëjëf jërëjëf askan baa ngi noonu askan baa ngi noonu ñoo ngi jël euh, li nga xamante ni moom moo di corniche bi pour dellu à la base comme on l'appelle la cité Keur Gorgui donc lii moo fi amoon di fàttali ni rek euh, visite professionnelle la woon entre euh, le maire de Ziguinchor ñëwoon pour trouver axe de collaboration et de coopération entre la mairie de Ziguinchor et la mairie des Parcelles Assainies Euh, nit ñi nag ñoom ñoo génn finalement mu nekk une visite populaire donc ñu ngi leen di bàyyi askan baa ngi nii di daw mais lii yéen ñi nga xamante ne ay internautes président Ousmane Sonko tàmm ngeen li fu mu dem foog ñu gunge ko donc euh, on vous donne rendez-vous très prochainement pour des mesures de sécurité nu sommes obligés ñu arrêter live bi ba parce que gis ngeen ni nit ñaa ngi ko topp léegi pour ay mesures de sécurité foog ñu arrêté live bi waaye xam leen ni rek président li ko taxoon na jóg président li ko taxoon na jóg moom mooy li nga xamante ni moo di coopération entre mairie bu Ziguinchor ak mairie bu Parcelles Assainies rencontré na ñi nga xamante ne moo di les conseillers municipaux et le maire Jamil Sané ñu waxtaan seen bi mu génnee la askan bi génn gunge ko kon nag mi ngi noonu euh, on se donne rendez-vous très prochainement incha allah toujours dans ce que la grande marche la marche triomphale du président Ousmane Sonko euh, vers le palais de la République du Sénégal incha allah